musique bi ma leen di waaj a tegal ñi yàgg seetaan football ci tele bi xam nañ ko yàgg nañ ko dégg tamit ñu koy faral di dégg saa su match Ligue des champions amee waaye est-ce que yàgg dégg musique bi tax na nga xam ko bu baax déedéet moo tax tey seen mbokk seen xarit Lamine Fati fas yéene leen faram-fàcceel li ñu duppee hymne Ligue des champions hymne boobu lee nag bëri na lu ci làqu paroles yi ndaxte ay kàddu la kàddu gu nekk jëluñu ko rek teg ko ni sànni ko amna teki. lu muy tekki amna lu ñuy bàkk ñi nga xamante ñoo war a jongante Ligue des champions yi ci ban làkk lañ koy woy ban at lañ ko tàmbalee teg ki ko ci fan la inspiré woo ngir way ko loolu lañ leen fas indil ci seen vidéo bu bees bi li ñuy tàmbalee mooy li ñu Ligue des champions wala ci wolof ñu ne Ligue des champions ki ko bind mu ngi Tony Brighton di doomu Angleterre ci atum 1992 la ko bind ñu koy teg saa su match Ligue des champions di tàmbali ci stade yi ak ci programme yi nga xamante ne dañuy àddu ci wàllu Ligue des champions kuréel bii nag du UEFA moo ko moom keneen moomu ko Tony Brighton moomu le. mu ngi inspiré au ci œuvre bi ñu duppee Zadok the Priest bi nga xamante ne ki ko bindoon moo di George Frederick Handel allemand la mu ngi judd 1685 génn àdduna 1759 mu ngi bindoon œuvre boobu la ñu duppee Zadok the Priest ci atum 1700 27 ci fofu la Tony Brighton inspiré woo ngir mëna way wala bak bi ñu baku bàkku Ligue des champions ñu tamaliko tek ci atum 1992 version officielle bi nak Tony Brighton mu ngi ci andak orchestre bi nga xamantene mom lañu Royal Philharmonic Orchestra waaye nak aw yi aw yi ngeen di dégg nonu ñukay wax ñaar yoon ba ñetti yoon Saint Martin's Field ñoko def UEFA nag dafa taamu ñetti làkk yi nga xamante ne mooy ñetti làkk officiel am ngir ñu mën ko way mu di anglais français ak allemand version originale bu hymne officiel bu Ligue des champion mosuñu ko jaay mu ngi toll ci ñetti minutes ñaari couplet la am ak ay chœur maanaam ay awu yuy dellu ci saa su woy bi di dem hymne Ligue des champions billet. ko le 25 novembre 1992 dañ ko tegandoo ci première journée Ligue des champions la 1992... 1992 ci stade yi may bëgg lim bokku na ci stade Jan Bredel... bu nekk ci Bruges ci Belgique Ibrox Stadium bu nekk ca Glasgow fële ca Écosse San Siro ñu naan ko Giuseppe Meazza fële ca Milano ak Estádio das Antas bu Porto ca Portugal hymne Ligue des boobu boobule nag jëluñu lépp di ko teg ci li nga xamante ne moom mooy ci tele yi ci tele yi liñ ciy faral di teg moo di strophe bu mujj bi ak awu bu mujj bi saa su match Ligue des Champions di tàmbali ma ñëw ak yéen nag ci kàddu yi hymne bi nag wax naa leen sànq ci ñetti làkk lañ ko way mu di ci anglais ci français ak ci allemand ci biir way bi nee nañ ce sont les meilleures équipes ce sont toutes les meilleures équipes, l'événement principal, les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions. Une grande réunion, un grand événement, l'événement principal. Buita tàmmali nag Chi ci allemand Die Meister, Die Besten, The Champions. ñu Chiwalu ko ci final final yi nag seetlu nañu ne woykat italien bi nga xamantene mom lañ tuddé Andrea Bocelli mom nak musna interpréter ñetti final yo xamantene dafa interpréter way bi en live mu ngi ko defee won ci finalu 2009 ba ci finalu 2016 bi amoon sa San Siro nako ci finalu 2017 bi nga xamantene ne mu ngi amé won ci Millennium Stadium bu nek ci Cardiff tamit interpréter won na li ñu duppee hymne Ligue des Champions mbokk internet yi ñi nga xamantene ñoy ñooy di suivre actualité sportive ci sen chaîne Fati Sport YouTube bu len faté nak abonné wu chaîne bi ngir am bép information sportive ci Sénégal ci Afrique ci aduna bi